bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Mamor moom sëriñ Fàddilu mi sëriñ Muntaxa di taxawuloo njàngum alxuraan yi moo nu yónni ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko jëlee ci sëriñ Muntaxa moo wax ne mi ngi sant ñëpp ci bisu altine bi ñu weesu gis nañ ñëpp def nañ seen yitte ñëpp def nañ seen passeef ba mbir ma yéwén na rafet na mat na sëkk sant na ñëpp gërëm ñëpp waaye ci woote bu njëkk ba da caa waxoon ay baat ne bu ñu àggee ci alxamis itam foo ko waaye mën a defe na ko fa defewaat loolu rek la bëggoon leeral ci ne suba ci alxamis ji woowu ñu kenn fenn kenn ku nekk fa nga nekk na nga ko fa defee bu dee jàkka la ña fa daan jullee ji nañ fa dem bu ñu mën a benn kaamil sax ñu jàng ko kenn ku nekk sa biirum néegit boo fa mën a jàng sax xasida nga jàng ko bu dee këru Sëriñ Tuubaa la ña fa daan toog nañ fa jàng teg téere moom daal dafa bëgg fu ay nekk di ko fa dund di ko fa dundal ànd ak jàng sa passeef ak sa yitte teewlu sa xol la nga mën a tudd ci yàlla nga tudd ko yàlla bu dee koo xam daane ci kaw yoon ba mënta toog tiimu téere sax nay tudd yàlla ci kurusam kon defee loolu buñ ko boolee lépp yéegal ko ci liggéey bu altine ba lépp di jënd benn liggéey boobu sëriñ Touba ñu naan Serigne Touba nangu ko bu boobaa yiw àdduna ak yiw àllaaxira xañ na ci liñ bëgg lépp tey la xañ na ci sëñ Muntaxa mi ngi fasal sa pasaleel ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp sëñ Maam Moor it nee la waxoon nu taalib yëpp nu ñaanal sëñ Muntaxa mu àggale yéenam waaye kàddu yi rek lañ yónnee waatoon mooy ñu xam ne njàngum suba moom woowuñu kenn fenn kenn ku ne fa fa nga nekk na nga fa teewlu defe ko fa ko mën a jàng sa biir nekk sa kaamil ba mu àgg nga def ko ko mën a jàng see xasida sa biir ne nga def ko ñu daan jullee ci jàkk ja jañ daan jullee nañ fa daje jàng fa ñu nekk ci kër sëñ Tuubaa it ña fa daan toog nañ fa jàng lañ man loolu daal lañ bëggoon mu leer ñëpp ne woowuñu kenn fenn suba waaye nekk rek na nga fa teewlu jàng la nga daan jàng donte xam nañ ni ñii ci ëpp am nañ seen dog yu ñu daan jàng par bis dog yooyu luñ ca mën a yokkaat ñu yokkaat ko ca te lépp ñu teewlu defa defa delloowaat ko ñu ko ñu ko delloo lépp liggéey lañ ko Sëriñ Tuubaa تعلمي سنتين يا بليغ يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته